parce que mënul nekk dix dix enseignants temps bi daf ñu tënk te yow yaay suñu dernier intervenant dañuy jàll ci deuxième question bi mhm. parce que bu dul loolu temps bi daf ñu tënk te xam nga man bu ma fi génnee ak couvre-feu bi xaw ma ban heure laa yegg sama kër waa ji man bu ma jàppee du baal <laughs> <laughs> alors li ma bëgg xam ban lecture ban lecture ngay def tey sur les décisions prises par le gouvernement gis nga tey ministre de l'intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye ak monsieur Maître Omar ñoom ñëpp tey génn nañu tey moom la république ñoom ñëpp a jaxasoo ci benn conférence de presse ah ci benn conférence de presse de la république génn. <laughs> waaw ñooñu gisoo ñoo ñooñ ñooñu nekk ñooñu foofu. Ah. ñooñu ils doivent rendre le ya nga ni dañu war démissionné normal dañu ñëw xam ne ils ont échoué ñu rendre seen démission le ministre de l'éducation en premier waa mais waa mais cher Sabi Diop mais tu te rends compte le ministre le le le ministre de l'éducation supérieure nu mu ah Thierno Thierno Anne xaw ma comment il s'appelle encore. Euh, Cheikh Omar Anne. <laughs> Cheikh Omar ñebe Anne borom ñebe te mu nekkoon kudd. ñebe mu taxaw mu taxaw ne day def. point de presse nga xam ne du ko jëlal sax dix minutes mu liir benn mu liir loo xam ne da nga ko koy bindal ba pare. il mm-hmm. se permet mu dind masque bi ne da koy étouffer. Mm-hmm. loolu nga war koo jël jox ko ay enseignants ñu war koo ñu war ñu war a téye masque boobu minimum pendant six heures de temps. Mm-hmm. jël xale yoo xam ni ñu ci bëri dañoo am problème mu maladie chronique man sama doom dafa asthmatique naru woon dem école quelque soit alpha naru woon dem école. nga jël xale yooyu takkal leen masque pendant six heures de temps mhm. yow adulte punkal mu toll ni yow sain munoo munoo maintenir masque bu dix minutes. professeur yi nag bu ko solloo ñee. ak professeur loolu moom mooy aveu la c'est un aveu mooy ni lii munul mhm. nekk. Mhm. donc ministre de l'éducation bu gisool bi gisee loolu gis déplacement bi ni muy méttee moo xam ni ñii mënuñoo reprendre mais ma a continué dafa mel ni ñoom ils l'ont fait à à à à dessein pour propager le virus un peu partout à, l'intérieur du pays. yow loolu nga jàpp. ils l'ont fait à waaw moo tax mu war a démissionner. muy benn xa gis naa ne ministère loolu mi ngi wax mais bu fekkee dafa ba am lu mu bëgg wax bëgg naa mu intervenir bu ma après ma mën ko répondre parce que mi ngi reetaan rek quoi. waaw mais non Thierno Lo moom dafa neex dara rek. monsieur le ministre Thierno Lo dafa neex dara moo tax muy reetaan. parce que li muy wax non non dama yow terminal muy tëj nag xaaral tuuti ah, non non dama bëgg a xam je veux juste savoir ndax li may wax c'est du sarcasme moom reetaan bi c'est du sarcasme da ko def ay ree wala da cee ànd wala day confirmer wala day affirmer. waaw Cheikh Sadibou vas-y rek. waaw vas-y moo tax ma ne ministre de l'éducation. dafa war a démissionner. le ministre le ministre de l'intérieur. le ministre l'intérieur xam moo tax mu war a démissionner grand. yor mhm. wax na ko sànq déjà de un le fait ñu war a génnee fi armée bi ci loo xam ne nekkuñu ci état de siège mhm. mais li gën a garaaw mooy moment bi ñuy xam wax xale ne leen confiné leen rek ñëpp ñu confiné wu ñu jël ay doomu privilégié ñu yor seeni laissez-passer di dugg fu leen neex di dem ak a ñëw mhm. et bavure bi am bërki démb deux bavures yu am démb ak bërki démb waroon na tax moom mu mën a rendre table yi xam ne moom dafa war a bàyyi mhm. ministre de la santé moom kenn waxu ko tey gis naa ko tey muy glorifié wu naan on a fait quarante neuf mille tests sur quinze am looy reproché Ablaye Diouf Sarr Ablaye moom tamit dafa xamul dara xamul sax fan lay teg tànkam moom mënuñu loo wax ban Sénégal mënu laa wax ban stratégie moom la adapté ci Covid bi kenn xamu ko. non Ablaye Diouf Sarr nag Cheikh Sadibou Cheikh Sadibou non. da may ne peut-être. Ablaye Diouf Sarr rek. non déglu ma dama naan la Ablaye Diouf Sarr rek. déglu ma rek. da may wax Ablaye Diouf Sarr stratégie am yow xamuloo ko mais am na stratégie stratégie bi kañ mooy taf yëngal. mais kenn xamu ko. taf yëngal. ah d'accord ok c'est du. ah quand à vue. defu fi kenn xamul parce que boo demee par exemple fu mel ni France États-Unis ak sax dañoo total tëj nit ñi nga dem fu mel ni Danemark dem fu mel ni Hollande dem fu mel ni euh, Écosse dañ na ñoom non dañuy dañoo bëgg nit ñi am benn benn développé ay anticorps benee benee benee à deux pas stratégie boobu lañ def dañoo bàyyi nit ñi développé ay anticorps ñu bàyyi ñu ne duñ tëj économie parce que cette crise est est sanitaire au au début mais actuellement c'est économique c'est social et c'est humain loolu moo garaaw mais non xam nga crise bi Cheikh Sadibou lan moo ko rendre une crise économique parce que Sénégal lay wax exemple bi ma xam dañu bàyyi la santé di commander l'économie alors que ça doit l'inverse loolu moo tax elle devenue économique parce que boo ñëwee ci dëkk boo xam ni plus de soixante-dix pour cent dépendre nu ci état dépendre nu ci salaire pour dund ils dund ils vivent d'une façon informelle di dund au jour le jour sama maam bi dëkk Géejawaay day xëy dem quatre heures du matin dem Soumbédioune jënd fa jën ñëw jaay ba onze heures mu jaar këram bàyyi fa dépense ngoon marché Thiaroye jënd légume continuer dem jaay ba huit heures neuf mu ñibbi këram kooku nga ne ko mënatoo génn parce que transport amatul. Mhm. maçon bii xëy doo demi journée soo ko laaj avance ñu jox ko mu ouvrier bi mu mu doog a joxe dépense. Mhm. soixante-dix pour cent de l' économie sénégalaise est détenue par l' ñoo ñu dépendre ñu ci état. ñoo mhm. ñooñu ci ay dem ak a ñëw ay dugalante ay génnalante ci lan dépendre. am na ñoo xam ne ci ay service la ñuy def. service bi mooy ay MoneyGram ay Wari ñooñu mënatunoo doxal parce que émigré yi nga xam ni ñoo la majeure partie ñoo ëpp lu doon joxe xaalis ñu def ay transfert d'argent ñu ci bëri liggéeyatuñu danoo toog fi mu ne nii on survit ñu ngi sant yàlla mais dañuy survivre donc yooyu yëpp moo ko boole mu nekk benn freinage économique nga jël bëgg a def pilotage à vue di continuer di persister ne da ngay tëj dëkk bi tëj dëkk bi tëj dëkk bi mais xoolal kor kenn du ko tëj ci lu ko neexul bu yàggee gars yi ñuy génn explosé loolu kese la tey ñu ko c'est plus fort que parce que dafa metti xoolal koor gi léegi nit ñi di Sénégalais yi daj neuf heures ñu tëj leen te ñëpp xam nañ koor lim représenté ak li ñu doon def jàkka yi fii il a yi ñuy xeex a xeex a xeex ban bàyyi leen ana ana ana nan def seen bilan par rapport ak bi ñu commencé tëj jàkka ji ak tey ji ndax pandémie bi dafay yokk wala dafay stable wala ñu xam ne la mosquée n'avait rien à voir avec la contamination ñi dem ci jàkkee ñoo gën a responsable ay magum jëmmalan ay adulte lan dañuy jàpp. ba Cheikh Sadibou Kébé deux minutes ay mesures barrières deux minutes pour terminer. non deux minutes da ngay jox da ngay jox le ministère Thierno Lo une minute. non damay conclure Cheikh Sadibou damay conclure. waaw ah, d'accord kon kay kon kon ñu. <laughs> waaw Cheikh Sadibou Kébé maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm di sant intervenant yi fi jaar yëpp ak invité yi di gërëm internautes yi di gërëm waa Sénégal set di leen wax nañ nañ leen jox beneen dig daje ci beneen yoon di wax nag nguur gi bu ñu munee accorder liberté provisoire Bougazelli war nañu mun a libérer notre jeune frère et camarade Abdou Karim Gueye thématique boobu dinañ fi ñëwaat expliquer ni justice bi justice kumba am ndey la ak kumba amul ndey ndax Bougazelli bi ñu jàpp flagrant délit ci faux bu nekkee mun nañ ko jox liberté provisoire Abdou Karim Gueye ak euh, ñeneen ñoo xam ni sax jàpp nañ leen seen place du ci kaso bi tey Sénégal boo fi nekkee politicien lu la neex daf dara du la ci fekk mais boo nekkee doomu Sénégal te àndoog Macky sàll mel ni Abdou Karim bu ñu la jàppee dañ lay tëj ñuy exiger ba tey nañu libéré Abdou Karim Gueye daful dara place am mi ngi ci auprès de sa famille auprès des sénégalais place am mi ngi ci la mu doon daf mooy taxawu askanu Sénégal kon président Macky Sall yow ak justice bi fi nekk ni instrumentalisé par le pale ni ngeen bàyyee Bougazeli mu ñibbi këram mu munoon ngeen bàyyi abdu Karim Gueye mu ñibbi këram. jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf. Hmm.